asalaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñi ngay xamante ni yéenay faral di seetaan di ndamoo di tiitaroo sëpp la maa ngi nii ànd ak waa El Média nuyu naa leen fa ma leen daan nuyoo madame Djigo maa ngi nii toog waaw kay xale bu saf bi petit Saloum Saloum maa ngi nii euh, ànd ak yéen seen émission bi nga xamante ni a bëgg ma émission boobu noonu nga xamante ni a ko taamu ba tax na damay doxantu ndànk biir si kaab daal daagu xolal dox ndànk temp waaw koy sama gars yi ki ma leen doon wax ak nii Assane moom laa déggoon muy tëgg nii nekk mi répétition ah Assane Diop laa lay tegal nii waaw kay si sa kumbis am na ku mu dalal tey ci émission li ma bëgg a doon Assane maa ngi lay nuyu bu baax baax fekk la nga ànd ak jàmbaar yu yànji yi salaamaaleykum. waaleykum salaam Kumba. maa ngi lay nuyu bu baax baax Assane di kontaan bu baax a baax ni ma la fekkee yaa relax géwél. maa ngi lay fay yàlla na jàmm yàgg. amiin yaa rabbi. tey nag ma fekkoon ndeysaan ma ànd ak sama gars yi groupe Teranga. ku ci mel ni ak Thiaran ànd seeg Jibi Diop ànd seeg Moussa ànd seeg Abdou Cissé ànd seeg Samba ñu doon foo di fel tey nag nga fekk nag ñuy waaw. xam li mënta ñàkk ci ëttu ngéwél dëgg tollul noonu Assane man itam nii laa mel de daal di ànd ak samay caméraman yu ñaaw Bamba Touba Bamba Ndiarem ak monsieur Lo El Hadj Lo Ndam Siré ñoom laay àndal saa su daal di yor sama micro di doxantu biir Sicap may dox ndànk rek daal di dégg sabar yi jiin bak ba bàkk ba bàkk ba ñu ne loolu moo am foofu may dox ndànk ne saraax sa digg ëtt fekk la ngay répété Assane may kontaan bu baax baax euh, ñëw pour nga wax ma yow lan nga bëgg doon Assane ah lima ma bëggoon mooy li ma nekk bëgg cee tekk ba Sénégal ñëpp àdduna ñëpp ràññee ma Assane daal man yow laa gëm ndekete waaw kay yóbb Assane damaa bëggoon tey nga wax ma tey su ma la fekkee nii nga toog ne la kan mooy Assane yow lan ngay teg samay loxo. waaw li may teg sa loxo mooy Assane nii rek Assane ni ko gisee mooy Assane nii rek nii la mel daal ndax ñun ay Baay Faal lañu waaw te defe naa ni dooley jën ndox te ñii ñooy samay lépp muy samay loxo samay lépp Samba Jaxate ngi toog Alaaj daa ngi toog Pape Seen a ngi toog sama gaay yëpp a ngi toog di nuyu nag ndeysaan ndax lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxal leen bàmbaa ngi hélas ngi borom Elvision. ndeysaan yi nga xam ñoo xew ci jamono. dëgg neexul ñoo ngi nii. bañ bañ nangu. ndax ku sa ndey gërëm. sa bàyyi gërëm la bu tiit bu ragal. dëgg la te defe naa ne ci ñoom yaakaar. dëgg la. dina nuyu kumba ngi lay fay bu baax a ah, ma la nga yi daal di yor ku galañ man sax bu mu expliquer man pardon pardon Hassan mën nga ma wax ki ki mom num tuddu mom ki kii de tumu tungu. ne tumu ne yengul ma xol ki mooy tumu ne. yow moom boo nekkutoon tungu ne dina doy wat ci yow wax ma bi num tuddu ki kii mooy tungu ne. ba ca topp bii cool. yee cool moom daa mel ku njool. ñewal may xol ciol coolo ngoo ki Musa Moussa Musa ngi noonu Moussa ñu ngi lay bëggee baax a baax Balla yeah. bëggee naa la bu baax a baax ay ca kii mooy Thialassène Serigne Benn sabar yi léegi nag ma bëggoon xam géwél sabar question laa la jox nag di asal géwél sabar lu tax bu ñu ne géwél rek ne sabar waaw dama ko way boo juddoo ci ngéwél màggee ci ngéwél yaroo ci ngéwél sama premier single yi ma waayaat ko ci ay géwél lanu pire ah. loolu daal nga ma mën a jox léegi ngéwél géwél géwél moom ça signifie quoi géwél parce que tubaab da koy waxee griot wolof ne ko géwél géwél laa bëggoon moo bi nga wax ma moo bi la lay signifié wax ko tamit ñi nga xamante ni ñoo may seetaan. waa géwél mooy géwél leen ko mu taxaw wax lu baax. cum ay ca parce que man maa xam nga damay maalaw lool ba maalaw birima damaa xamoon lan mooy signifié géwél ma doon toog nag ni niib di xaar. xam naa yéen a koy yett ñoo koy foor ñoo koy tëgg. lawbe est ce que xam ngeen yéen ñi may seetaan tey damaa am fierté ak kontaante ndaxte géwél ak maalaw ñoo toog nii ñun ñaar ku ci nekk war a sa morom may jox sama micro asan rek ba tay di leen fàttali yéen a ngi seen émission li ma bëgg a doon tey du yomb ah Assane. du mës a yomb damay dégg ci ay bay naan am nga album wala single wala genre asan yow fan nga toll ci aar bi. waaw def naa trois single nag ñu ciy sant yàlla bu wér ñu sori sori wuñ ci. ah ndax euh, boo déggee ma wax loolu. Mhm. Hmm, kenn du tagg sa bopp. dëgg la waaye ay jàmbaar lan ndax am na ñu ma jiit si aar foofu te defe naa ni amul sax benn single mais loolu ak suñu borom dogalee àdduna nag yàllaay dogal te ne ñu ci ñu ngi ci album ñu ñaan Sénégal ñëpp teg na loxo bu génnee. Assane est-ce que yow nit ñi xam nañ la Sénégal xam nañ la ñu ngi lay dégg. waaw waaw sant yàlla bu wér ndax àdduna. munoo taxaw ne ñëpp la xam. dëgg la. ñii dañuy xam wala ñi bëgg ñi bañ. waaw kon sant yàlla bu wér mooy mooy loolu. ci biir waaye bu euh, ñaar ñu la bëgg sax sant yàlla wala ñaar xam sax taw féex. la loolu ak cant la may kontaan bu baax a baax waaye tam di la laaj rek ba tey est-ce que trois singles yooyu noonu euh, nan nga ko dundee ba nga kay ba nga koy def am na ñu la jàppale wala Assane kan moo nekk ginnaawam carrément Assane yow kan moo la dooleel. waaw ñun nag euh, dañuy sant yàlla bu baax. ba ñuy génne single suñu mooy lay génnee def single xam naa nag dina mës a neex yi wala dina su mës a fekk si ndax luy raam sa ñeg ba la jëm te tepp tepp mooy yuret moo gën yuret nit ki gëmal li nga gëm ndax boo xoolee ki nga xam ni moom moom El muy El Hadj euh, ba ma koo koy ne ko barke Seydina Mouhamed jàppal fi nga jàpp mu am benn caméra mais gëm boppam. ak gëm boppam loolu naa sincérisé jërëjëf moo tax waxuma la ay caméra sax oto sax dina ko gaare ndax ci gëm bopp ni da ngay gëm sa bopp suñ PDG baa ngi àdduna nag dara yàggul mhm. dama ko way nee naa la kuy mere na nga mere sa kër bu kenn mere kenn bu kenn mere kenn yaatal xol yi te bokk ndey te bokk bàyyi dëgg la ku tardé sa fii la tardé dëgg la ah kontaan naa bu baax a baax ci li nga ma jox noonu mais nag damay dégg benn affaire keroog noonu ci xale yi daal laa koy faral di dégg muy cox Assane laal ma coxo. waaw waaw coxo de moom ma ci wax ne naa sawar ndax mooy sama troisième single. di leen coxo tey ba mu neex. coxo bi nag dama koy may buur géwal di ko may mbay dollar di ko may njaga sama téer ki nga xam ne ndeysaan di ko may amee ciw sama gaay yëpp ñu ngi ne taxaw. di ko may alaaji daawda di ko may pam mbay di ko may njale pap seen yéen moom coxo damaa bëgg nag coxo bi nag yéen laa ko tuddee yow bu la neexee da ngay coxo fecc bu bees fecc bu bees xolal joxoo ngi ma ñàkk sama ndey kumba wuy sama ndey joxoo fecc joxo wàcceel sa loxo booy fecc joxo laalal fu la neex ey yow bu la neexee da joxo yow bu ko neexee fecceel joxo taas mbaa din re nga ne joxo joxo joxo kaas mbacake ramba ce coxo coxo wuy sama ndey fecc bu bees xaley si kap yéen a ko moom yaay madame Camara yow jëlal lii jam yaay sama waay jëlal fobal wol ma madame jam yaay sama waay jam tana ci teer jëlal lii yaay taalibe seex jëlal lii xolal yaay sama waay lii xolal wuy la la yàlla ko ñu la yaakaar desal nga gor caam caam caam dem xoolal yow bu la neexee da ngay joxo wuy sama ndey fecc wu beex ey xoolal bu ñuy wote géwal tëgg ak fecc taxul bu ñuy wote ci géew rëy làmmiñ taxul lépp ci joxo lépp ci joxo joxoo ngi nii ay xale yi si yéene ko moom xale yi tali mam jaara yee jug leen joxo xale yi faas mbaaw yee jug taas mbaa gina we nga ne joxo joxo coxo taas ba oh. may kontaan bu baax a baax ba tey di leen rappelé yéen ngi seen émission li ma bëgg a doon Assane nag ma bëggoon xam tuuti lan mooy sa relation ak artistes yi parce que milieu bi dafa doy waar jamono ji rawatina nga ne yow am nga trois single du ñàkk loo xamante ni dund nga ko ci euh, yow ak artistes yi wala genre sa diggante ak artistes yi laa bëggoon nga may ma tuuti. Euh, euh, dafa am sama benn waay buy wax lu am solo muy Samba Diakhaté ma koy ñaare yàlla ko yàlla defal jàmm nee na nit na sa rafet te nit booy taxaw ne yaa ko dàq lii fexeel nga gën ko cee ci man damay sant yàlla dara ji Mouhamed artiste yu mag yëpp nag ku ma ci gis danga may jox cër ba moom moom ndax dama ko dund ak yow ba barki dem la siis rek maa ah, naa cee seede moom ci ngay coxo. sant bu wér la. barke Mouhamed. àdduna neex na Assane nee na ñëpp la seq ak jàmm nangu naa loolu est que tey am na koo xamante ni tey soo amoon soxla 100000 francs muy artiste di nga mën a yëkkat sa téléphone rek ne ko aloo man la Assane 100000 laa soxla léegi nii maa ngi nii toog ak waa Elvision est-ce que am na. ah waaw am na kay ndax koo gis am na nit ku baax koo gis am na nit ku baax am na bu baax a baax a baax. am na bu baax a baax. ñoo xam ne que xam ne que du kenn sax. <laughs> Ah, duñu essayé woote daal wala. dëgg neexul man comprendre naa bu baax a baax Assane nitu nit ñi la ndax man wax dëgg yàlla am na loo xamante ni war naa koo mën a sedd ci yow euh, may ma bokk ci waa Elvision Média terewul ma mën a wax ci yow dara parce que am na lu ma xam ci yow mais nag li ma xam ci yow dama koy denc ba cappaandalu émission bi duma la may dara incha allah damaa bëggoon nag nga wax ma comme ni euh, dañuy faral di gis jeune talent yi bu ñu commencé rawatina ñuy am ben single ñaari single dañuy déloger sen kër ñu dëkk ak mbokk ñu dëkk ak yaay ñu dëkk ak baay des fois sax ñi leen di waxal naan du ngeen topato wajuri ci waxu nit ñi hmm. parfois it ñu leen di waxal naan ba mu dëkke côté bi suko ay mbokam rañé rek day da top lu hmm. waral loolu ak yow est ce yaangi dëkk ak say waa kër waaw dëkk ak samay wajur rek alhamdullilah may dëkk samay wajur wajur mom dang ci wax lu am solo barke bay. àjjana nday ku fonk say waajur tardé nga fii tardé nga fële ndax waajur yi lépp euh, loolu dama koy waaj a génne sax single la après naa lañ ci ñamal mooy yaay booy bu la ëmb juróom-ñeenti weer amoo fayam teg ci boole koog nàmpal deux ans boole koog ndax guddi ndax bëccëg kon yaay booy kenn amul fayam loolu dama koy waaj a way boo tëddee ba guddi papa yaay tëdd yaay di jooy ndax la ñaki nelaw kon yaay amo fay bo magge nak ling muy wax ak yow nga koy sànni loxo koku do dem diu fo fek ñen diw diw diw diw ah koku ay wajurum ñaanal nan ko relation ak finu ñu tok ni fi place la hmm. nest pas fi place la wa sa relation ak borom place bi koku alaaji dawda la hmm, wa alaaji dawda dina wax ci mom ndax euh, boy wote jam jam rek ngay am booy wote leneen leneen ngay am daa wote jàmm Sénégal ñëpp bëggal ko seen bopp kon loolu sant yàlla la muy sama mbokk géwël nag sekk mi ci móor yi waaw kooku ndey ji da ko gërëm ki démb téléphone sama kanam jox ma ko kon loolu sant yàlla la alaaj daaw dañ koo fekk si nag muy jaay yu rafet lii ma sol moo ma ko solal na ma asan sanceel nga def sa émission boole ko xaalis nag Amna na yeneen ñuy wajal yeneen émission boba nak ngay xamni asan am nay mbokk waaw place bi mu bax rek fi dajé Cheikh cham pap gay ñom Pambay ñom Njare Samba Jaxate gaay yépp ak sama waji nga xamni ku tëdd ci matna mom la papa mi ngi ni ci bir waaw ration jàmm rek la fi ama waaw. Thiam Babil dem sunu transitaire baa ngi nii talibi sëriñ Babacar Si Maadi Bakari Darama aram loo aram loo Kumba Caam ba fi nu maalik ba da benn xar yàlla bopp jooro cambabel yey cambabel cambabel Demba Thiaw Demba Bel Demba Thiaw xeli bi seex baa gi ni ki ndeyam gërëm ko way transitaire am nga jom am nga fulla xolal mo wali sek tay ma way ki ma way muy ko nga xamni jegal na ci man sori nya ci man jam, madam jam, nuy nala, la yow ya ko mom ya jappale sama waji wali wel ma jam guess guess fariyoole yi yu ñaalo gay naa ko daan jël camba beel dema caam dema caamey talibe seex na du faat waxtu camba beel suñu transitaire bi tey ma lambi lambee doomu garmi garmi lay doone wanaane boo doon jaan ñaari bopp ngay lambool man de dama yërëm sa noon du bég sa du kontaan jàmm baabel dem ba jaame dama lay wayale Serigne Babacar Sy Malick Ngoye nga doy doo cam baabel demba cam suñu taraasi teen baa ngi tiye moo madam cam madam cam asan wayal wayal wayal wayal seex nanooy taalibe seex foo fekk day jaamu yàlla fonk na juróomi waxtu fajar tisbar takkusaan timis gee teg ci ci caam demba cam moo dinaa ko way mbokkum na Ibrahima Xaliilu Laay cam yaay sama waay xaaroo ma ci dara xoolal li la yàlla jox jox nga ko ñi lay yaakaar des sa sa ngor tiituma ragaluma faalewuma kenn moo papi jaam yaay sama waay waale ngi sama rakka ngi si ngéewal waali ci ngéewal soo demee soo demee ti waawoon gay waxtaan soo demee ti waawoone ñi ngay wasifa di laasi soo demee saada baay waaw waaw wali batu la ilaha illallah ba fajar taalibe seex la fekk baax xolal tiituma ragaluma faalewuma ndax lan kuy taalibe seex sa loxo ca kaw Samba Jaxate wale ngi nii taalibe seex daaru xabiibi خلابنا تقوى غاي دار الخبيب خلابنا تقوى غاي أنا تجاني يا تجاني جنجل قسم تجاني أنا تجاني تجاني أنا تجاني يا تجاني أنا تجاني مرنجاي فادمبا مرنجاي مرنجاي مرنجاي مرنجاي marinja marinja ya anna tijane ya tijane anna tijane ya tijane talibe ser tamalai wo tamba bende macha ya jame tamba bende macha antara zamai sajo bi ai ke wan lanju ai ke wan lanju ai ke wan lanju jugo nyana nyayo xoolal wali boo woyee ci Ndiouga Ndiéré Ndiaye dina kontaan Sala xari Ngone Mame Gana Bara Diop la joore sama wali bu nuy woote ngéwal tëgg ak fecc taxul bu nuy woote ci géew rëy lam mi taxul ey wali fexe la toog neex te neex say fa si bëgge Samba Jaxate Alaaji Daawda xolal ku bax sa bop ku bon sa bop wali bax sa bop bu ke sis bu ke ñaan bur yàlla nan ko ñaan ñaan ñaan ñaan woyal wali woyal njaaye juga jara jay sala xaari ngone mam gana biran jo moy sa mame ma way mor jo moy sama Astou Touré mooy sambam man de dinaa la woyal de yaay magu Fallou dama lay woy magu Amé Joobe joom ma si mooy sa baay moom jaagi tey ma woo laay asa bëgg naa la tey ma woy la man de tey ma woy la tey ma ji la man tey ma woy jugga njara njaaye saala xaari ngoone parce que yaay di ñaan sama kanam la bu tiit bu ragal yaaya ko ñaan man Assane Diop sama noppi yaay na la demal da ngay dem te kenn du la téye da ngay dem kenn du la téye waali wuy sama yaay demal demal fii la kenn du la wuy sama day waali gaay demal wuy xale e xale eh xale demal wuy waali yow xale eh xale demal wuyaay e eh, xale xale ey eh, nanooy wali Cheikh Thiam taalibe Serigne Touba Cheikh Thiam sëñ Bamba yaakaar baay yaay mamba mama dalal ba fii ca Touba ba tax dal yooyu ba fu dem man faa ne Cheikh wali mamba nu dalal ba eh ba tax dal yoy fu nu dem man fa ne ca touba lamp babu muridina ma degen dem ba lamp babu muridina ma degen dem ba wura wura gen ken pacha gen gen gen ken tan wura sa tas gen ba ca gen wura ma wura ma ki gen wura ma gen gen gen gen gen gen oh wali wel ma serigne touba balang mara ay saja. maam jaara bu soo mi ci bamba gi ana seex caam seex caam yaa bëgg sëriñ bamba yaa doylo sëriñ bamba seex caam delay wooman caam babel dem ba caam seex caam moo di waaw yaa bëgg sëriñ bamba yaa doylo sëriñ bamba kokoy borom yaqoodu xabdulaay wax wa axmbadoy xadima man suma toxo bismil ilahi wax wa rahman wax wa rahimu xadil aman alhamdulillahi ala alkitabi maxa musibil itabi tuna tuba zilla tuba ila ay murid lañu ay murid lañu ay murid lañu ay murid lañu sa mbaxti Bamba ku ci na ci mboxti bamba ji sa mboxti bamba ji sa mboxti bamba ji sa mboxti bamba ji biirooy ay géwél lañu ay géwél lañu biir c'est beau c'est vraiment beau yen ñi nga xamanteni yen ñi sétane xam ngeen ne tay mom ci ay bir géwél lañ dugg dëgg tawul noonu faaw kay ñu dalaloon suñu ndaanaan gi di asan asan nak émission bi nga xamanteni ni yex nañ ci cappaandal gi daanaka fi ni légui tay ñu wara tagato ma bëggoon rek nga wax ma euh, lan ngay dund ci métier bi conséquences yi nga ci jànkuwanteel ak yow lan ngay wacc parce que fi ni il faut ñu ki ko dal parce que ay géwél lañ wa ñu ngi sant yalla bu wër ndaysan di julli Seydina ni ñu ko waxal ñu commencé won rek ar bi nak ndaysan dafa yaatu ar dafa yaatu ku ne bay sa waar adduna gën yaatu ku ne bay sa ndax boo xoolee waykat yi fi nekkoon sunu mag ñëpp ndaysaan ñii làqu nan ñii ñi ngi fii kon sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan yàlla li ci bëgg ak kenn ku xam ne ku ciy mébét muy avancement yàllal ko suñu borom defal ci dara ji dina Muhammad ndax sànq da nga wax lu am solo ndeysaan muy baax rek am solo du ñu nekk El bu baax a baax du ñuy Diop Magie taalibe Serigne Mbacke Madina ki nga xam moo waral lépp du ñuy sama jabar waaw caat la nag mu ne ko felfelaale ba mu neex di nuyu la yëkkumba. Masane ko waaye daal di bëggal mu tëjee ko waaw ba mu neex di nuyu El Hadj Lo Bamba xale bi nga xam ne tuwaar ma tuwaar la macha allah bëx bëx laa ko tuddee nee na wàcceel ñaari cool yi nee na wàcceel ñaari cool yi noo ko waxee waccal ñaari cool yi waaw mu naan lan mu yëmbax naan bëx ba wàcceel ma.